voilà alaykum mbokk yi maa ngi leen nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di am mbégte dellu soit ci seen rajo King FM ngeen koy jàpp ci 99.4 nekk fii ci Almadi taax mi nga xam ne dalal groupe Futur Media rawatina télé boobu nga xam ne TFM di télé Futur Media IGFM journal record mais TFM religion dalalit rajo bi nga xam ne moom King FM 99.4

di dem ci àdduna wërngal këpp mbokk yi nga xam ne ñu ñu fay déglu ci www.kingfm.sn Seydina Omar di leen defal seen émission feggoog Maysa ci wàllu digital bi nga xam ne di ngeen ñu mën a xool di ñu mën a seetaan en live di ñu mën a seetaan direct yéen ñi nekkul Sénégal eh, ci live yi kooku Maysa moom mooy toppatoo mbir moomu ci wàllu xarale bi nga xam ne nag si laay mën a jokkoo yéen ba ngeen may déglu.

Euh, ci lépp li nga xam ne jëm na ci wàllu décision boo xam ne war ngeen ko jël wala ci loo xam ne amaan na boo leen si duggee du baax si yéen wala it loo xam ne boo leen ci duggee réussite incha allahu rabi euh, daf si euh, feeñ di yëngu ci mbir moo xam ne est-ce que di ngeen ci am réussite wala ndam bi nga xam ne da ngeen koy bëgg donc loolu nekk na loo xam ne boo leen si taxawee rek incha allahu rabi dinañ si mën a bàyyi xel bu baax a baax mun ci waxtaan ak yéen voyance nag dafa nekk loo xam ne dafa war di. gëstu nit warul di dund ci ci ci ci kumpa nit warul également di dox doxin woo xam ne ah, ay bëtam du ñu leer wala kenn du ko dee olof Njaay day faral di wax ne ku ñime dañ laa dee dee bi du lenn lu dul gëstu say mbir dée bi du lenn lu dul xam fi ngay teg sa tànk dee bi du lenn lu dul xool yoon wi nga xam ne boo si jaaree bu neexee suñu borom subhaanahu wa taala di nga am réussite boo xam ne di nga ko am mu jëm ci say mbir loolu yëpp nag moo waral ba ki FM indi leen benn émission bu jëm ci loolu wax woowu kese ñu tuddee ko allo voyance donc loolu di nekk li nga xam ne boo leen si waxtaanee wala ngeen woote ci 88 628 99 90 88 628 99 90 muy nekk numéro bi nga xam ne incha rabi mun nañ waxtaan hmm? jox leen ay conseil. jox leen ay orientation par rapport ak seen vie mais également boo leen amee ay questions yoo xam ne questions yu leen jaaxal la jëm ci seen vie sentimentale xam nga léeg-léeg nga gis ay nit tout le temps dafay am ay yenn yenn jafe-jafe yoo xam ne daf si daf siy feeñ donc nit ki war na xam moom ci boppam ah ban type de personne la ci éléments yi nga xam ne xaaj nañ ko doomu aadama yi muy ñeenti xaaj yi bii di élément de feu élément air élément de terre ak élément eau maanaam nitu ndox nitu safara nitu ngelaw ak euh, nitu suuf donc ñeenti ñooñu bu ci nekk am na ñu mën a ànd ak ñu mënul ànd donc ci biir loolee. day baax ba ngeen xam ko ñu mun si waxtaan mun leen xoolal est-ce que Kader ak euh, ki dëkk Kolda xaw ma nu mu tudd kooku est-ce que seen diggante mun na mun na ànd wala Kader ak keneen ki ma woon ki dëkk Ngor est-ce que mun nañ ànd ak Kader ak ki nga xam ne wax na ma ko fan yële ne Ndar la dëkk est que mun nañ ànd est-ce que Kader ak ñi nga xam ne ñi ngi nekk en war a waragum na ma juróom-benn xaw ma juróom-ñaar ñoo xam ne euh, Kader foog mu gëstu moom ci boppam ci ñoo ñëpp ku ci nekk. kan la ci mun a àndal ak kan la ci mënul àndal donc loolu dafa nekk loo xam ne euh, mënoon nit ku semaine bu jot nga indi ku bees semaine bu jot ajjuma bu ma ñëw rek mu ajjuma bee paase ku dëkk ndar la ma waxoon xaw ma awoon nan tey jii mi ngi may wax keneen ku bees ku bees xam naa ci kanam dinañ si donc àdduna noonu lay demee baax na nag euh, nit ki mu xam carrière nga gëstu ba xam kan la euh, ñi nga xam ne également ñi ngi nekk di liggéey di yëngu ci bërëb

mu nekk heure yu yu yu fees suba si matinal bi di am al di ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy équipe bi man mii di ngeen ma am ci matinal bi incha allah rabi euh, ci ay rubrique yu bëri yoo xam ne dañ si def lu ci mel ni ci wàllu wàllu wàllu horoscope boo xam ne ci kàllaamay Kocc léegi lañ koy defee dootul nekk en français léegi ci olof lay doon donc ak yeneen yeeg rubrique yoo xam ne dina am donc yooyu yëpp di nekk ci programme yu yees yi nga xam ne ñi ngi koy waaj a door allah rabi laata loolu nag dañuy wëy rek euh, di jokkoo ak yéen fii ci King FM 99. point 4 ci seen émission astrologique ngeen mën ci 88 628 99 90 88 628 99 90 Nous leen ko defee rek euh, ñu waxtaan par rapport ak scène présent seen passé seen futur question yi ngeen am jaaxle jaaxle yi ngeen am li ngeen

ah ñoom seen jëm bopp li ñuy toog te amuñu boroom kër dafa bëri torop torop torop torop torop donc loole nekk na loo xam ne am na ay cause ñenn ñi dina leen wax ne leen ay faru ñii mu nekk wàllum cat ñii mu nekk ñoom seen jëm bopp ñu xaw a sikk xaw a waar ñenn ñi nekk ñoo xam ne dañu bëri ay problème mu nekk ci góor yi aussi ñoo xam ne ah dañuy mel ni genre carrière bi rek di diggee te li ñuy diggee wax dëgg yàlla daanaka fii ak juróomi at yi di ñëw ci seen kanam ñoom taxawuñ pour jël soxna donc ñoo ñu dañuy nekk ñoo xam ne bu ñu duggee ci seen vie donc dañu leen indil ay problème donc yooyu yëpp di nekk li nga xam ne nit ki ah, war na koo war na koo xam ñu xool ko ba xam bu baax a baax a baax exactement lan la mun ci taxaw donc 88 628 99 90 ginaaw bi 23h demé ba tégal 25 euh, minutes bi ñu paree rek ci service commercial bi donc non lay demé non lay kon di tous les jours euh, tous les vendredis liko ko 23h. ba ba ba ba minuit japp une heure du matin en tout cas di waxtaan ak yeen ci sen domaine hein, sur le plan professionnel euh, ci walu liggéey ci walu avenir ci walu walu walu walu sëy ñu gis né nit ñi également ku ci nekk da nga am ci benn signe bo xamné ne da nga ci nekk moom ay signe, yo xamné mën nañ and amay si ñoo xam ne mënuñu ànd am ay nit yoo xam ne ay ascendant lañ donc yooyu yëpp dafay nekk li nga xam ne euh, bu fekkee am ne kenn ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. soxna si noo def. waaw doo yëkkati baat bi tuuti. naka naka fan ngay wootee. Hein? ah. waa baat bi tuuti dégguma la bu baax de. géej jox ma sa date naissance. 2 janvier 1998 Donc trois chiffres yu entre un et vingt trois 4 6 six trois quatre six ok soxna y li nga xam ne moom que que trois bi dafay wax ne par rapport ak yow sa jëm bopp ci yenn euh, yenn possibilités yi nga xam ne war nga ko mën a am ci vie sa dund moo xam ci wàllu wàllu professionnel moo xam ci wàllu sëy moo xam ci wàllu voyage moo xam ci wàllu investissement ci benn mbir boo bëgg wala lu mu ci nekk mais dañuy gis ne yow ci sa jëm bopp loolu dëgg la naam dina am mais dafay yéex parce que position bi mu taxaw li yonent yàlla musa affaire yi dina sotti mais dafay xaw a jël temps tuuti tuuti maanaam tëpp tëppal lay doon foofu li muy bëgg wax mooy yow sa jëm ba bul découragé bul xaddi bul découragé par rapport ak say mbir yi nga nekk bul découragé bu fekkee yaa ngi sóobu ci benn affaire sottiwul mais bul découragé tamit bu fekkee dañ lay wor parce que wor boobu noonu dafay bëri coow moom mooy siis bi dafay am ay ay déception yu bëri maanaam nga séq ak ay nit yu mel ni kaneel li ñu lay wax ak li am dara du ci nekk benn waaw donc kon xam nga ñooñu dañuy nekk ñoo xam ne ñu jara moytu la ñuy doon donc yooyu nag dafay bëri moo xam ci côté ñu góor moo xam ci côté ñu jigéen waa donc déjà yooyu yëpp nekk na loo xam ne na ci bàyyi xel nga am ci benn taxawaay bu baax kat bi nag dafay wax réussite dafay wax dafay wax suprématie dafay wax am-am dafay wax également gëm-gëm boo xam ne day jóge ci ay nit jëm si ci yow mais lenn rek moo ma xaw a jaaxal bi ma xoolee bu ma defee somme bi six ak quatre bi mu nekk diis mooy yow ci sa jëm bopp da nga xaw a gaaw a mun a gis sa bopp ah loolu moom. loolu mais lan la lan lan moo la dal ba ngay def loolu. Hmm? ah. waaye yow kenn yabalu di. ah. waaw ah yow kenn yabul di kon kañ jaru ko wala. non non du question bul bul def loolu parce que en réalité loolu dafa wax ne daf lay indil ay ay complications davantage. waaw donc kon déjà loolu bagn kou la yab oui bon yow ya gisee dañ lay yab mais du question yab àdduna mo démé noonu.

incha allah di nga gis ne say affaire dafay commencé di saawan baawan di yokk oh, waaw dafay dafay dafay yokk da ngay gis yokkute goo xam ne dafay taxaw ci yow mhm. donc déjà loolu tamit na nga ci bàyyi xel am ci beneen taxawaay dem ci pour loolee mën a nekk li nga xam ne luy jàppandi lay doon oh, waaw loolu nga bàyyi si xel bu baax a baax dégg nga waa kareel mu mel ni kooku rëcc nañu doon ñu woowee foofee ci diwaanu Géejawaay ah donc du 1998 donc euh, ay mbiram gis nga ni muy démé ci complication mais yu ci gëna a mom la parce que dafa nekk koo xam ne dafay gaaw a gis bopam momay susceptibilité yo xamné dañ ci donc yoy di indi ay lënc-lënc yo xamné ne dañ ci nek 88 628 99 90 88 628 99 90 muy nek numéro bi nga xamné ah bo leen ci wootee rek ah, ñu mëna a ak yéen mën leen xolal seeni mbir ci domaine bu mu sur le plan professionnel sur le plan sentimental relationnel ah, par rapport la question de la am ngeen ko femme bi bëggoon na laajte ci relation sentimentale am complication yi si am du dara yow la yow yaa ci am complication parce que yow yaa susceptible yow yaa bëgg ay affaire yooyu seetlu ay affaire yooyu xoola yu demee noonu bu yàggee nga ne da ngay bañ ko la yàpp wala ko loolu dafay indi difficulté donc yooyu dafay nekk li nga xam ne facteur de blocage la ci sa vie sentimentale donc il faudra nga bàyyi ci xel bu bu baax a baax 88 628 99 90 muy nekk numéro bi nga xam ne euh, buñ ko wootee rek ñu jël keneen ki nekk ci ligne bi salaamaaleykum allo. Ah, waaw salaam. Uh-huh. ah yaa doon wootee géej waay waa aca bisimilah loo bëggoon laajte waat waaxa da nga bëgg a def ñaari ñaari concours waaw aha ok est-ce que mën naa am euh, bon je pas xaw ma ndax mun nga wax concours yi nu mu tudd dual Oto, oke okay, dual uh -huh. Monitor. Monitor, monitor loo moniteur lo la loolu ah monitor collectivité éducative wow wow wow lo de moom tam nga ci àll bi collectivité éducative pour le douane, il y a chiffres, euh, à 4 chiffres entre 1 et 20. 2, 7, 8. Ak 10. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Ak 10. Euh, euh, ok, donne-moi pour le moniteur, oui. Euh, mu mel ni Kanel rëcc nañu euh, c'est dommage que pour douane bi kese la jox muy 2 bi 7 bi 8 bi ak euh, ak 10 bi donc ci boobu incha allah rabi après dinañ ci bàyyi xel bu baax en tout cas ci li nga xam 2 bi ak 8 bi moom dafay nekk loo xam ne mën na échec donc sur le plan professionnel ci wàllu concours Bobé. donc du coup moniteur collectivité éducative xam naa du ñàkk bu ñu ci wootaatee ñu mun ci xool ba ba xam ah, ba xam donc euh, ñu xoolaat ci ba xam euh, dina del siwaat wala yeneen yeneen jamono aussi mu ñëwaat 88 628 99 90 88 628 99 90 muy nekk numéro bi nga xam ne euh, ba leen si woote rek incha allah ñu mun a jokkoo ak yéen comme ni ñu koy faral di defee ajjuma bu jot ci waxtu wi bu bu 23h jotee à ah, ñu minuit jàpp une heure du matin donc euh, di waxtaan ak yéen par rapport ak euh, seen mbir xoolal len seen affaire euh, sur le plan professionnel sentimental relationnel ci seen projet ci seen santé ci lepp li nga xam en tout cas taxaw na ci yéen mu doon lo xam ne kumpa lay nekk ci seen mbir mu doon lo xam ne war ngeen ko xam mu doon lo xam ne war ngeen ko geussu mu doon lo xam ne war ngeen ci am taxaway inshallah allahu rabi ba leen defee 88 628 99.

donc euh, comme concours la nag donc il faut mu gën a xarañ am pas-pas gën am pour mu mun am euh, réussite totale bi ci euh, examen concours boobu noonu muy concours douane bi bon ci walu moniteur bi xam du ñak su woote waatee ñu mun ci xol 88 628 99 90 mu mel am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko asalaamualeykum aha Karel bo ma mënee may touti sourdine bi tamit ñu koy dégg ci suuf touti rek ah wa dina bax 88 waaw 628 99 90 di informatique manel Salam. waaw ziar naa la sëriñ bi ah informatique manel ñu ngi lay Salam bu baax salaamaaleykum. salaam. sëriñ bi. waaw lay ziar. waaw ñu ngi dellu ziar. fan ngay wootee. may Casamance. Casamance fan ci Casamance. région de Ziguinchor. région de Ziguinchor naka alhamdulilah foofu yaa ngi ni déglu rajo bu baax waaw waaw waaw ok via internet bi waaw ok jox ma waaw kareel yegg nañ casamance waaw <laughs> ok jox ma sa de naissance ak trois chiffres entre 1 ak 20 1996 uh-huh. jox ma trois chiffres entre 1 ak 20 2 2

mais lañ lay wax ak lay am dara du ci nekk benn. waaw moo tax ci biir loolu na nga def beaucoup attention. yaa ngi dégg ah mu mel ni kooku rëcc nañu Kader 88 622 99 90 di dem ba fële ci diwaanu France Bordeaux di bàyyi xel ci Mohamed sar ñu ngi lay ziar bu baax euh, informatique Manel di kontaan ci yow bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yaa ngeen ñuy seetaan wala di ñu xool ci 3W kingfm.sn qui a donné ci wala ngeen dem igfm et vous ah def igfm et vous et nous ah gfm et vous voilà ngeen dem ci gfm et vous wala ci 3w donc fofu yeb bo leen fa demee Inshallah, di ngeen a ak euh, ñun ñi nga aussi ñi ngi Sénégal ci euh, région yi fele ci diwaanu Kaolack euh, ci diwaanu Tamba diwaan zigenchor ah, di bàyyi xel ci Alpha Kalidou Alpha du Sow ñu ngi lay ziar bu baax ah Fallou Fallou Diouf ah Fallou ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax euh, depuis Kolda Fallou ñu ngi lay ziar nuyul ñu waa Kolda yëpp ah, di kontaan ci yéen bu baax a baax euh, am na ah waaw waaw waa Kolda waaw foofu moom xam naa ne euh, Karel mi ngi fa doon yaakaar pour ñu may ko fa soxna mais xam naa ne mbir ma daa mujj yàqu donc kon Fallou waa Kolda ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax Alpha du Sow Mohamed Sarr depuis France informatique Manel donc di leen ziar yéen ñëpp ci. Euh, live Facebook bi nga xam ne yaa ngeen ñu ci seetaan seen émission di wéy ngeen mën a ci 88 628 99 90 comme mbokk moom ñu doon foofee euh, ci diwaanu Ziguinchor ah Ziguinchor fële ci Casamance donc di bàyyi xel ci moom bu baax a baax mu joxe woon 2 4 5 du 1996 bàyyi mbokk bi nga xam mu ngi doon fii euh, ci diwaanu di xel ci bi 23h demee ba 35 minutes di bàyyi xel ci ñëpp ñi nga xam ne euh, ñu ngi ñuy ñu ngi seetaan di ñu déglu saa su ne ñuy waxtaan ci yéen bu baax a baax Alpha Alpha Kalidou Sow mi ngi nekk ranch de dolli ah Alpha Kalidou nekk ranch de dolli donc di bàyyi xel euh, ci képp ki nga xam ne rek euh, yaa ngi foofu ci ranch bi ah donc ngay yëngu ci wàllu jur ah donc ci wàllu jur donc pël yi nga xam ne ñi ngi fa nekk ñëpp tukulóor yi alpulaar yi donc képp koo xam ne daal yaa ngi yëngu ci wàllu woowu rek ñi ngi bàyyi xel bu baax a baax Alpha Alpha Kalidou Sow donc foofu ci ranch dolli di leen ziar bu 88 628 99 90 muy nek numéro bi nga xam ne ba lañ si wootee Joko euh, a jokkoo ak man ñu mën a xool seen i mbir hmm, ci ci jox ay euh, mais également ba leen amee ay questions yoo c'est des questions précises ay questions yu yu yu yu yu yu leen yu leen jaaxal la ah ba lañ ci wootee inshallah allahu rabi euh, may sa ñi ngi kontaan bu baax ci walu digital bi ci liggéey bu am solo bi nga xamné ne euh, ko ci euh, def Mohamed Sarr ah donc Mohamed Sarr Karel numéro bi pour wootee bu dé ñi nek bitim rew ñom nan la ah, ñi nek hein 33 841 22 80 90 voilà donc Maysa donc comment Mohamed Sall France la def répondre ci numéro comme ça peut-être dina vous dina en Europe, ah. donc ñi nga aussi ñi ngi euh, Sénégal ñu sommes euh, euh, en Afrique ah, en ci Europe Amérique donc di baye xel ci bu baax ci déglu bi nga King FM 99.4, c'est l'émission astrologique bi dippé à Allo Voyance ngeen mën ci 88 628 99 90 88 628 99 90 voilà donc numéro bi pour ñu nekk bitim 33 841 22 90 voilà donc 33 841 22 90 merci merci tu ci le digital bi donc di bàyyi xel bu baaxa baax ci ñëpp ñi nga xamné en tout cas ñu faral di déglu aljuma bu jot ci waxtu bi ñuy waxtaan ak yéen par rapport ak euh, seeni mbir comme ni ma koy faral di waxee rek euh, àdduna moom donc nii lay demee tout le temps dafay am ay ay ay complications yu ay nit di nekk tout le temps ni dafay am ay jaaxle jaaxle tout le temps ni dafay bugg di di xalaat bay xool fi mu jëm ndax dina sotti du sotti dina baax wala du baax est-ce que luy antu la est-ce que du antu est-ce que projet yi mu jël. projet yu yu mën a sotle est-ce que décision yi ngay jël également ay décision yoo xam ne décision yu baax la léeg-léeg nit dugg ci ci fekk du yoonam ah may sa dugg ci mbir fekk du yoonam nga xam ne day dem ba benn jamono day perte temps daanaka li mu fay def ci ci diir pour topp ci benn liggéey di ci dëlti dëlti di ci dëlti dëlti alors du yoonam kooku perte temps bu yaatu la moo tax dañuy faral di wax sax ne euh, nit bu nekkee ci benn mbir du toll ci diiru at te te gisu ci résultat na ko bàyyi jàll ci leneen waaw loolu dafay nekk loo xam ne euh, il faut nit ki aussi gësu ko euh, xool ko xam ko ba xam exactement lan la ñuy gis également nit di soobu ci dara ah mais tout le temps da ngay gis ne lu mu yor mu yàqu wala lu ñu lu lu lu bu siiwee sax ay affaire am euh, day yàqu bu ko ñaar ñett nit yéegee dootul am donc yooyu yëpp di nekk yoo xam ne ay doomu aadama daf ñuy faral di ñu dal li ko c'est normal nag xam nga boo xoolee euh, ñun dañuy dund ñun ak jinne yi ñoo nekk ci àdduna euh, boo xoolee tamit dafa am ñaari cat yoo xam ne baaxul muy catu làmmiñ ak ak catu bët donc yooyu dafay nekk ay mbir yoo xam ne euh, doomu aadama bu fekkee ne daf ko daf ko daf moytuwu ko bu ko dalee rek daf koy indil ay yàqu-yàqu yu bëri ah, voilà bu ko dalee dafay indi ay yàqu-yàqu yu bëri ah donc may sa kontaan nañ ci yow trop ah, donc dafay indi yàqu-yàqu yu bëri donc nit ki war a xool nag ay mbiram ba xam exactement loolu noonu nga xam ne euh, daf si nekk lan la ba xam exactement est-ce que lii cat la wala kort la wala liggéey la

moo koy ibbi mais pour affaire bu ndaw boobu ibbi la nag il faut nga xam yow ci fan nga bokk il faut nga xam ndax nitu ndox nga wala nitu ngelaw wala nitu suuf wala nitu safara nitu safara du nit ku bon du nit kuy dem safara wala nit kuy def lu bon déedéet dañ dañu xaaje loolu rek donc ñu gis souvent ne euh, nitu ndox ak ak ak ak suuf boo xoolee seen i mbir méngoon na mun na ànd parce que bu tawee gis nga euh, kii may sa gis nga image bi ñu woon ñi xam nga ndox mi dafa nekk ci ci suuf si moo tax bi verdure donc ñaar ñooñu même ci wàllu vie sentimentale bu ñu àndee affaire bi nii lay demee nga gis tamit ndox mi ngay gis bu euh, ak ak ak ak ak safara ñaar moo euh, safara bi day ndox mi wala ndox mi fay safara bi xam ñaar yooyu kon seen compliqué nga gis nga Euh, nitu ngelaw xam nga ngelaw foo ko gis ak euh, ngelaw foo ko gis nga ak kii nu mu tudd sax ngelaw foo ko gis ak safara day jax coow lu kur lay def donc Jules Sarr Jules Sarr ñu ngi lay ziar bu baax Ali Sonko waaw Ali da ngeen di ci 88 628 99 90 ah Jules Sarr ngeen woote ci 88 628 99 90 Euh, ñu mun leen xoolal parce que dina am ay information yoo xam ne euh, dinañ ko soxla ci yéen lu ci mel ni seen seen seen seen date de naissance lu ci mel ni euh, ay chiffres yoo xam ne da ngeen koy joxe ak yeneen information yoo xam ne buñ ci sukkandikoo rek dinañ leen mun a mun a jox ay ay tegtal yoo xam ne tegtal yu leer lay doon ba boo leen sooboo ci benn mbir wax dëgg naax yàlla ngeen bañ ci am échec ngeen bañ ci am déception ngeen bañ ci am yaakaar bu tas donc yooyu yëpp di nekk li nga xam ne euh, tout le temps nii lay demee nii lay demee donc euh, ci biir loolu boo leen wootee rek 88 628 99 90 dañ ciy euh, jokkoo ak yéen ginnaaw bi 23h demee ba tegal 45 minutes fële ci diwaanu diwaanu Ziguinchor ci diwaanu Tamba Kolda dem ba fële ci Kédougou ah, matam Matam sogui donc di bàyyi xel ci ñeen ñëpp nga xam ne yaa ngeen ñuy seetaan foofu ci digital bi. Euh, ci diwaanu fii Ndakaaru également ci gox-goxaan yi nga xam ne ñu nekk fii ci biir ci biir Ndakaaru ah donc ci àdduna wërngal këpp en tout cas ñooñu yëpp ñu leen di ziar bu baax ci 3W King FM point sn ngeen mën a woote ci 88 628 99 90 ñu mun leen waxtaan ak yéen comme mbokk yi nga xam ne woote woon nañ sànq ki nga xam ne mi ngi doon wootee fële ci diwaanu géej waay da doon information par rapport à concours yi euh, nga xam ne également ñi ngi doon donc nous aussi ñu a woote leen donc ça su ne nag noonu lay tous les vendredis euh, désormais laata ñuy programme bu bi di nga euh, minuit 2 heures du matin donc ci biir dinañ rendez-vous bi possibilité pour mën a woote pour ñu mun leen xoolal bu baax a baax donc euh, Karel mu mel ni 23 heures. dem na ba tegal 45 minutes ah dañuy bàyyi tuuti rek ñu yégal jingle bi en attendant ñu jëlaat ki stop. 23 heures, dem ba tegal 48 minutes fii ci King FM 99.4. 23 heures, it jot fële ci euh, diwaanu Mbour di bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax boutique Belaza.

Euh, ci par rapport ak chiffres yi nga xam ne da ngeen koy joxe euh, ci lépp li nga xam ne euh, bëgg ngeen ko xam ah, moo xam ci seen vie sentimentale bu dee dafa am lu leen ci jaaxal bu dee dafa amee question yoo xam ne bëgg ngeen ko posé bu fekkee ne yéen seen jëm bopp dafa am relation wala jigéen boo xam ne da ngeen di nekk moom xamu leen sëy bi ndax dina am wala du am ndax baax na wala du baax war ngeen ci dugg warul leen cee dugg donc yooyu di nekk li nga xam ne incha allah bu ñu defee 88.

ko jàllale donc euh, ñi nga yi donc euh, gis nañ euh, reste nga am en confiance ci programme King FM donc non lay demee saa donc ngeen mën continuer vraiment di feddali seen ak seen ci groupe Futur Média sax laay wax ah, ci groupe Futur Média donc King FM nag nekk ci bànqaas ngeen donc képp koo xam ne yaa yëngu ci wàllu wàllu wàllu musique wala di yëngu ci ci ci yenn mbir yi rek ah, mun nga rapproché wu ci euh, King FM incha allah ñu jàllale ko euh, ci émission yi nga xam ne ñu ngi fi am donc saa su ne noonu lay euh, demee ñi nga xam ne également dañu soxla am ay yoo xam ne bëgg nañ ko jàllale ci wàllu wàllu wàllu diine ah, donc yooyu yëpp. aussi incha rabbi rabi boo leen ci wootee ak service commercial bi rek ñu mën leen ci teg ci yoon donc seen émission di wéy ginnaaw bi 23h demee ba tegal. 48 58 minutes donc ngeen y a ci 88 628 99 90 88 628 99 90 en carré. donc ñu mun ci xol rek mëna a waxtaan ak euh, ñom par rapport ak euh, yi nga xamné daf ci euh, daf ci taxaw donc inshallah Rabbi. Hmm, donc voilà donc di bàyyi xel bu baax a baax waaw waaw sama sëriñ sama sëriñ ma ngi lay ziar. Euh, sëñ Daouda ah maa ngi lay ziar Daouda Daouda Fay ah, di content ci mom bu baax a baax monsieur l'inspecteur en tout nos respect donc di le bàyyi xel bu baax a baax yaa ci terrain bi di djeglu nak euh, ci ñak joko bi ah nekk ci ay xat-xat yu kenn xamul rek ah, donc euh, di djeglu jégalu baax waaye incha allah rabi dinañ joko bu baax mu nek fidèle auditeur ah Daouda nek fidèle auditeur Daouda Fay di content ci mom bu baax a baax di ñu déglu nek nak ci terrain bi jamono bi ni ah, di. di di di di liggéey ah, nekk ci liggéey wu am solo woo xam ne ah, mi ngi ci di bàyyi xel également ci ah, collègue bi nga xam ne mi ngi ànd ak moom nii ci ci ndaamal gi donc euh, ñu lay bàyyi xel bu baax a baax di kontaan ci yow bu baax ci. Euh, <coughs> déglu bi nga xam ne yaa ngeen ñu koy euh, déglu saa su ne ah sëñ Daouda ñu ngi lay ziar Daouda Faye donc euh, nekk inspecteur euh, di bàyyi xel ci moom bu baax a baax a baax vraiment moom ak ki nga xam ne collègue mi nga xam ne mi ngi ànd ak moom di wër sur le terrain di nemmeeku ñi nga xam ne mi ngi liggéey ak ñoom di ñaan yàlla rek yàlla lafal ko cat donc ba liggéey bi.

waxtaan si léeg-léeg xam nga nit foog moom am jaaxle jaaxle wala nit léeg-léeg foog muy am ay ndëgg sërëx yuy nekk ci ci kanamam léeg-léeg nit tamit di bugg dara di ko xëccu te gënul ci moom jigu ko da ngay gis nit topp ci benn affaire sax euh, yàlla dogal muy sëy amul amul bant amul takkandeer nekk ci fu ne mu dugg ci lu ne mu def ko di faju di dem lu ne mu dugg ci te nekkate gënul ci moom waaw ah, nekkate gënul ci moom donc euh, loolu dafa nekk li nga xam ne suñu borom moom du juum ah sun borom du ju donc lepp lu nek rek amna app ak jour ak waxtu ak temps bi nga xamné c'est bien défini nga xamné sun borom si la si la ko programme parce que même doomu adama sax tay jii nii bu fekkee ne yaa ngi di sëy donc nga def par exemple ay 3 ans amulo dom wa mais lolou du dara parce que tay jii nii nit ki ki ki nga xamné yow ya ko wara indi kooku mom mission am tant que commencé wul du mun du mun du mun a ñëw du mun nek do doo won a lor ba pare aussi doo mun a du mun a juddu donc kon nit warul dund par exemple 90 ans yow nga bëggoo ñu bëgg 3 ans yi ngi ñëw ñu yokkal ko ñetteel déedéet donc dafay am ab diir donc jigéen yi nga xam ne ñu ngi sëy te yàlla dogal ñu amagum takkandeer wala ñu am ban bu leen ko jàppee dara yàlla moo ko dogal parce que lu ci nekk ci rek bakkan la lu ci nekk mission la lu ci nekk waxtu woo xam ne dafa war a am donc déjà loolu bu fekkee ne ñu ngi ci bàyyi xel bu baax a baax euh, dina nekk loo xam ne dina leen mën a permettre ñu mën a delloosiwaat suñu xel euh, di bañ nag di ko jiiñ ñenn ñi léeg-léeg boo gisee booy sëy ci famille euh, yàlla dogal tout tànk bi xaw a yéex a ñëw tuuti ñu jiiñ ko ku jigéen ki di ko wax ay mënoo am doom ak yu demee noonu pourtant ku góor ki day feebar hmm, Kader ku góor ki day feebar ah day day ku góor ki day feebar mais ñun fii Sénégal ñaare jigéen ñi lañ koy gën a gën a jiiñ donc loolu mu nekk loo xam ne njuumte lay doon léeg-léeg parce que léeg-léeg ku góor ki aussi am tudd jafe-jafe donc bu xawee bu dalee ci yenn famille yi waaj bu dawalee ab diir rek ñu takkal ko beneen soxna bu kooku nag amul tout tànk nag ñu soog a ne waa na nga dem faju jeeg yooyu fekk affaire bi xam nga donc waroon nañ ko faj depuis depuis ndorteel bi donc yooyu yëpp dafay nekk li nga xam ne da si am wala léeg-léeg nga gis nit Eh, di xëccu dara ah di bugg ndaamal wala bugg liggéey fenn wala mu kii mu jaral ko lu nekk di def lu nekk fekk gënul ci moom maanaam du du yoonam waru see jaar donc yooyu yëpp di nekk li nga xam ne eh, il faut nga nit ñi di ko xool di ko di ko di ko gëstu ah di ko gëstu donc eh, seen émission bi nag ci loolu lay dox ñu mun ci waxtaan ak yéen ci 88 628 99 90 ginnaaw bi 23h demee ba tegal 55. ah donc euh, Kader xam naa ci kanam tuuti rek dañuy dem euh, service commercial def naa waa donc fii ak euh, juróomi simili dinañ dem service commercial mais laata loolu rek ñuy wéy di waxtaan ak yéen par rapport ak seeni i bi di delloo siwaat seen i xel hmm? delloo siwaat seen i xel xamal leen àdduna donc li war a am li mën a nemb li war a am rek mooy am li mën a nekk rek mooy nekk mais kenn mënul xëcc lu mënul nekk wala nga bëgg a am loo amul ku yàkkamti sa wërsëg it da fiy teel a jóge waaw donc wërsëg moom tépp téppal lay doon rek nànk-nànk donc euh, lu àpp bu jot rek incha allah rabi yàlla na si def xewul nga gis léeg léegi nit tamit di di dugg ci benn mbir moo xam ne wax dëgg yàlla du ko gëstu dañu ne loo dugg ci neen génn ceeg nen waaw loolu moom àdduna moo moo demee noonu loo dugg ci nen rek ah génn ceeg génn ceeg nen donc kon déjà loolu aussi il faudra nit ñi bàyyi si xel bu baax a baax euh, yaram warul di fendi yaram warul di fendi boo xoolee sax. Euh, dëkk yi nga xam ne euh, duy taw day tàng jël température yi day day tàng jël donc suuf dafa war di dafa war di tooy donc yàlla nag ñun ñu nit daf ñu bind tout le temps li ñuy wax ne euh, suñu bopp war nañ day misaal warul sori donc nit yaram warul di fendi dañu war di saa su ne alxuraan bi yàlla wàccewu ko fi pour meuble donc daf ko fi wàcce pour ñu ci mën a ñu ci mun a mun a mun a jëfandikoo ah li ci mën a jëfandikoo donc loolu dafa nekk li nga xam ne ah, war nañ see jël ñi ñu ñu ñu ñu bind ko am luñ ci xool nuñ ci def ah, borom xam-xam yi jox lañ ci ay tegtal yu wër donc àdduna noonu rek lay lay demee donc euh, saa su ne ngay bàyyi xel ci say affaire bañ di xëccu lu nekkul bañ di dugg ci wala bañ di jël ay décision yi ci goût de tête parce que des fois nit jël décision boo xam ne après daf koy rëccu malheureusement fekk rëccu wees na donc loolu aussi nekk na loo xam ne nañ si bàyyi xel ginnaaw bi 23 heures. Demain, ba tégal 57 euh, minutes fi ci King FM 99.4. vingt dix di bàyyi xel ci annonceur yëpp ci sponsor yëpp di kontaan ci ñom bu baax euh, di nuyu ñëpp ñi nga xamne rek en tout cas ñi ngi déglu King FM di ko jàpp ci C'est une émission astrologique bi ñu à Allo Voyance man Seydina Omar ma leen koy xal vendredi bu jot ci waxtu wi ngeen mëna woté ci 88 628 99 90 88.

Hmm, donc par rapport à une décision yo xamné ne seen xel dafa nek ci jël ko <coughs> pardon wala am euh, fo xamné ne xalaat ngeen pour dem fa ñi di xalaat bëgg tukki est-ce que tukki bi gën na ci yeen est-ce que gënul ci yeen wala tukki bi deug la naam gën na ci yeen mais momay blocage lan mo koy bloqué yooyu yep, di nek li nga xamné inshallah incha allahu rabi ba 88 628 99 90 ñu mun ci joko may nek ci walu digital bi. kadal fego ci wàllu xarale wi di bàyyi xel ci ñëpp ñi nga xam ne eh, ñu ngi ñuy déglu fii ci King FM 99 point 4 waaye di ñu seetaan ci 3W King FM point sn ci àdduna wërngal këpp ñuy bàyyi xel ci ñëpp ñi nga xam ne <coughs> en tout cas waxtu wi nii eh, ñu ñuy bàyyi xel ku ci mel ni eh, ma jigéen ah, ma jigéen ku ci mel ni lii Asim lii Asim ñu ngi lay ziar ma jigéen Thiam donc di bàyyi xel bu baax a baax a baax ci ñi nga xam ne mooy taala boutique Bélésard nek fële ci Guinée Bissau donc ñuy bayyi xel ci sénégalais yi nga xamné c'est les sénégalais de la diaspora moy sénégalais yi nga xamné dañu nek bitim rew ñuy bayyi xel ci ñom bu baax a baax donc ni lañ koy défé sa su né ngeen mëna a ci 88 628 99 90 88 628 99 90 muy nekk numéro bi nga xamné inshallah incha allahu rabi ah, ba lañ ci woté rek dinañ ci mëna jox ay tegtal ngeen poser sen question ah, par rapport ak lepp li nga xamné

Euh, war nañ see euh, war nga ko xool donc nit warul di di dox ci ci lëndëm nit warul di dox ci làmbatu nit warul di dox également ci lu mu xamul donc yooyu yëpp di nekk loo xam ne incha allahu rabi euh, saa su ne doomu aadama daf ko war a gëstu xool ko ba xam fan lay teg tànkam fi muy teg tànkam ndax amul dëgg sërëx ndax fi muy teg tànkam réussite dafay nekk li nga xam ne daf ciy taxaw donc yooyu yëpp di nekk li nga xam ne doomu aadama bi daf ko war a am ñuy moytu. Euh, di def yenn mbir yi ci àdduna moo xam ci wàllu métit di di def yoo xam ne ci wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu defante lu bon la ah yooyu yëpp di nekk li nga xam ne euh, baaxul ci àdduna euh, ay yàqu-yàqu lay lay indi donc yooyu aussi nañ ci nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xoolaat bu baax sunu bopp xoolaat doxalin bi nga xam ne dañ koy am jëm ci suñuy mbir yooyu yëpp di nekk li nga xam ne doomu aadama bi war na ko gëstu xool ko te xam ne àdduna amul solo comme ni nga koy faral di waxee saa su ne donc seen émission astrologique li nga xam ne moom lañ duppee Allo Voyance comme ni muy amee euh, vendredi bu jot ci waxtu wi rek dañuy waxtaan ci lépp lu jëm ci lu lëndëm lépp lu jëm ci loo xam ne lu leen jaaxal lay doon lépp lu jëm ci loo xam ne euh, dafay am ay ay ay ay ay gàllankoor euh, ci seeni i mbir ay jafe-jafe donc euh, yooyu di doon loo xam ne buñ ci bàyyee xel bu baax a baax incha allahu rabi euh, di ngeen ci mën a am ay tegtal yu leer am ci ay tegtal yu leer ñu mun leen wax par rapport ak seen i mbir mun leen wax décision yi nga xam ne da ngeen koy waaj jël ndax décision yu baax la <laughs> wala baaxul léeg-léeg nit jël décision boo xam ne après du baax léeg-léeg nit également yéex a dugg ci dara xam nga par exemple ku ci mel ni Kader moom bu takkoon soxna depuis bu yàgg heure bii nii dépassé na fii waaye yàlla dogal na defu ko parce que chaque jour mu am ndaw su bees su mu dem labati dem seen kër wax ak sa ñoom pàpp lu nekk mu wax ko mais du respecter li muy wax waaw donc loolu Kader gis nga donc yii nii yëpp ci ay xeetu ay ay ay techniques yu muy def yoo xam ne la eh, nii lay naxee goroom yi donc yooyu di bàyyi xel bu baax a baax saa su ne waaw Kader gis nga rek nii rek ah nii rek eh, nii ngay naxee sa sa sa goro yi ah nii nga leen nii naxee di ñëw di wax ne dangay takk seen doom yi eh, takkoo dara hmm, takkoo dara waa dégg nga mbaa du ni ngay bàkko am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum salaamaaleykum allo allo waaw salaamaaleykum soxna si noo def allo waaw maa lay dégg waa acco yow kay la xaw yow yaa ñuy dégg yaa ngi wootee parcelle

اهو ايوه سون سي الو allo yaa may dégg est-ce que dafa mel ni da ngay da ngay déglu ci rajo bi wala lan la ok bisimilah baax na léegi li nga xam ne moom moo jote fës fii nii si yow dafay dem ci wàllu santé maanaam ci wàllu wërgu yaram difficulté yi nga xam ne da nga koy am ci sa wàllu santé bi dafay dem ci euh, problème yoo xam ne da koy am au niveau des articulations maanaam li ko deree ci tànk yi yaa ngi dégg wàcc ba ci suuf loolu ci kanam tuuti bu fekkee da nga dem ba am tuuti poids maanaam nga am yaram da nga commencé amay jafe-jafe ci côté boobu noonu maanaam ci tànk yi mais fii lay jóge ci ndigg bi wàcc ba ci oom yi léegi-léegi sax ci kanam tuuti dina dem ba ci tëstën

formation professionnelle ci wàllu jàng baax na cëw mais liggéey également ci liggéey yoo xam ne liggéeyu xalaat la boobu aussi dafa nekk li nga xam ne dafa gën ci yow mu mel ni kooku rëcc nañu Karel doon ñu woowee foofee nga xam ne mooy diwaanu parcelle donc di bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñu ngi nekk parcelle unité 1 ba 26 ngeen ni ñuy déglu saa su dem ba fële ci diwaanu Cambérène euh, di bàyyi xel nag ci euh, xew-xew woowu nga xam ne euh, ñu ngi koy waajal mu nekk le 5. ak le 6 muy euh, appel euh, bi nga xam ne euh, moo ko defoon di woo nit di woo jinne yi donc ñu bàyyi xel ci laayen yëpp yi nga rek ngi région de Cap-Vert ñu ngi nekk ci àdduna këpp di ñaan yàlla bés boobee ñu yegg ak di 5 ci samedi 6 euh, ci diwanu yof pe ñuy dem ngor ah, donc euh, ngejj en tout cas fep fo xamne rek ndingala fep fo xamne dal euh beurebu laayen la euh, inshallah rabbi dinañ fa am ay yëngu yëngu ci walu diine yo xamne dinañ ko fa def donc lool di nek le 5 ak le 6 sama xel dem ci waykat bu mag bobu di mambay lay donc ñuy baye xel ci mom bu baakha baakha baax baax ak képp koo xam ne rek euh, sëñ Ida Ida Thiaw laay donc ñu lay ziar bu baax man seen Amar maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax euh, di bàyyi xel ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk foofee ci diwaanu Cambérène ah diwaanu Cambérène sëñ Naama ñoon di kontaan ci ñoom euh, di ñaan yàlla rek appel bi ñu dëgmal yàlla nañ ko fekkee tal ko te lépp li nga xam ne incha rabi war nañu jëm ci gan yi incha allah rabi yàlla yombalal ñu ko euh, borom bës bi it euh, yombalal ñu ko ba mu neexee suñu borom euh, ñëpp ñu mun leen defal ñu ñëw def appel bu baax ah, def appel baax ñaan dem ci béréb yu tedd yi incha allah rabi donc ba lépp lu ñu fa jëlee déwén mu nekk yokkute ba bu ñuy ñëwaat ci appelu déwén bi muy nekk yokkute carrière mu mel ne am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum soxna si. waaw noo def. ñu ngi lay ziar. fan ngay wootee nii. wootee Jack Jack Saw. Saw. waaw naka waa foofu. waaw ñu ngi foofu. alhamdulilah euh, sa date naissance allo. allo waaw soxna si. 1985. 1985. Hmm? waaw jox ma trois chiffres yu la entre un ak 8. 6 6. 6 waaw 6 waaw baax na 6 ak ban. 4 waaw. 2. waaw. Euh, ajaratu bëri wàllu cat buy laxasu ci say mbir. muy 6 bi 4 bi ak 2 bi yëpp dañuy wàcc donc wàllu wàllu yàqu-yàqu wàllu cat. wàllu jafe-jafe wàllu nit di la wor wàllu ngay sëq nit du respecté li muy li ngeen wax nga nekk nit koo xam ne sa kàddu du dellu ginnaaw mais souvent boo xoolee wàllu war daf si taxaw c'est normal munoo si dara noonu lay konne di demee nit ku nekk ak natt bi la yàlla teg waaw ah, mu mel ni rëcc nañu Karel soxna su ñu doon woowee foofee ci diwaanu Jaksaaw moom dafa bokk ci xeet bi nga xam ne ay mbiram saa su ne day yàqu day bëri ay jafe-jafe di bëri ay gàllankoor euh, di bàyyi di bëri ay lënc-lënc mu mel ni euh, minuit dem na ba tegal vingt cinq minutes fële ci diwaanu Cambérène maman Sène ñu lay ziar booy madame Ngom euh, Moustapha di kontaan ci yéen bu baax a baax foofee ci diwaanu ci diwaanu Cambérène di dem ba fële ci diwaanu Cambérène 2 Yoff Ngor ah donc di bàyyi xel bu baax tey it di bàyyi xel ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi nekk fële ci diwaanu Porokhane ah euh, Kader yal na la yàlla may ab maam jaara hmm? waaw donc euh, loolu xam naa lu am solo lay doon coow heure bi normalement waroon na la fekk poroxaan damaa xamul lan ngay def ndakaaru ba heure bi ndax ndaw sang fi waxoon ne danga koy yóbbu xaw ma lu xew ba ba yóbbuwuloo ko foofu ci poroxaan xam naa bu ñib moom seen diggante dina xaw a lëj waaw donc euh, di bàyyi xel ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi dem foofee ci diwaanu poroxaan di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lépp li nga xam ne ñaan nañ ko fa yal na yàlla nangu di ñaan yàlla it jigéen ñi nga xam ne ñu ngi sëy ñu jur ay maam jaara jur ay maam jaara yu bëree bëri ah jur ay maam jaara yu bëri am ay eh, am ay tout tànk yoo xam ne macha allah ay référence la ñuy doon ay référence la ñu leen di tudd ci lu nekk eh, donc loolu bu ñu jugee ci loolu ñuy dem ci kasu rajab bi kasu rajab bi nga xam ne incha allah rabi le deux bii nii la bi ñu dëgmal talaata mu neexee suñu borom mu mel ni bëri na ay xew-xew yoo xam ne xew-xewu diine. yoo xam ne euh, dina am ci jamono yi ñu nekk ndax bu ñu jógee ci poroxaan bi rek euh, dañuy jublu ci Kazu euh, Rajab bi bu ñu jógee soo Kazu Rajab bi rek dugg ci appelu appelu Laayeen ni donc loolu di nekk li nga xam ne ay xew-xew diine loo xam ne ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ñu fekkee ko tal ko fekkee ko tal ko bu neexee suñu borom di ñaanal kilifa diine yëpp yu nekk Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yàlla may leen gudd fan wëral leen bu baax ba mission bi nga xam ne ñu ngi koy dox ndax kilifa yu mag yooyu nga xam ne ah nekkoon nañ fi tracé ay yoon tegu ci yoon yoo xam ne euh, bi ñu demee dañ leen fi bàyyi ñoom it ñu war a kon mission boobu war ko doxal di ñaan ñoom seen jëm bopp tamit yàlla bàyyi leen fi seen gëm-gëm gën a yokk seen imaan incha allah rabbi ba yoon yooyu ñu nekk rek yàlla leen si yàlla may ndam ci lépp lu ñu si def moo xam ci wérd moo xam ci jaamu yàlla bu ñu si mën a am rek yàlla na ci yàlla def tawféex donc noonu la day fay nekk loo xam ne ay programme la yoo xam ne incha allah rabi day am groupe Futurs Médias nag du ci du ci du ci des ginnaaw ah muy télé bi di rajo bi ah rajo RFM euh, ci site bi ah TFM religion donc duñ ci des ginnaaw incha allah rabi programme yooyu noonu yëpp dinañ leen fa teewal nekkal leen fa comme si da ngeen fa nekkoon donc euh, loolu dafay nekk loo xam ne. Euh, incha allah rabi ñu ngi jaajëfal équipe yi nga xam ne déployé nañ leen ñu dem ci kër diine yooyu yëpp moo xam Poroxaan moo xam euh, dem Touba moo xam également Ndindi moo xam dem euh, fa nga xam ne moom mooy Cambérène dem Yoof ah, dem Ngor dem ga donc ñoo ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi si dëgmal ci semaine bi nii semaine bii di ñëw mu nekk vraiment semaine boo xam ne semaine u diine la donc ñu ñaan suñu borom subhanahu wa mu may ñu. wër fekkee tal ba ñu fekkee ko lépp lu ñu si ñaan yal nañu ko yàlla may di bàyyi xel bu baax Sénégal dëkk jàmm la kilifa yu baax ñoo fi nekk bàyyi fi ay doom yu baax doom yu baax yooyu bàyyi fi ay sët yu baax donc bàyyi fi ay soxna yu baax donc yooyu nekk li nga xam ne boo xoolee saa su ne dëkk bi dañuy wax ne euh, lu bëri dina fi am mais bu ñu xoolee ci sedd rek ndox mu sedd lay lay mujjee ndox mu sedd lay mujjee dinañ am cël fi cël fi nii rek waaye après ñëpp dañuy delloo soit seen xel euh, ñëpp dem euh, liggéeyi ñi dem nekk ci seen i activité ñi nga xam ne yàlla teg na leen fi ak ñaanal yàlla yàlla may leen euh, ndam ci li ñi nga xam ne ñu ko soobu ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi leen fi teg ñi ñaan yàlla ñoom ñu gis ci seen bopp donc yooyu di am ñu gis le deux it day am le deux incha allah rabi day am li nga xam ne moom mooy prestation de serment bi nga xam ne ki fi yàlla teg. pour at yi di ñëw suñ kanam donc euh, moom également ñu koy ñaanal yàlla yéen bi oyof ci kawam donc mu mel ni daal dëkk bi bëri na ay événements yu bëri yoo xam ne euh, dinañ fi am incha allahu rabi bu neexee su borom subhanahu wa taala loolu di nekk ci semaine bii nii ñu ñu jëm ni li ko dalee le premier daanaka ba le 6 dem ci 4 avril bi ah Karel semaine bii di ñëw semaine bu kii lay doon ah ah kenn du liggéey semaine bi Karel Karel ñu day liggéey ah ne moom. donc loolu dafay nekk loo xam ne lu am solo lay doon donc saa su ne euh, noonu lay demee ngeen mën a woote comme ni ñu koy faral defee zéro heure dem ba tegal 31 minutes c'est l'émission astrologique bi ñu dippee Allo Voyance man Seydina Omar ma leen koy defal saa su ne euh, ni ki euh, vendredi bu jot ci waxtu wi ngeen mën a woote ci 88 628 99 90 ñu mën a waxtaan ak yéen ci seeni affaire Euh, mën a sàmm tey mun leen jox ay tegtal jox leen ay conseil ñu dollante xalaat mën a waxtaan ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci digital bi donc ñuy bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax ñoom ñoom asim ñoom asim lii ñoom ma jigéen ah, Mohamed donc ñëpp ñi nga xam ne en tout cas ñu ngi ñuy ñu ngi ñuy ñu ngi ñuy déglu donc ñooñu ñuy bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax donc euh, saa su ne noonu lay demee à partir de semaine bee di ñëw nag incha allah rabi euh, programme yu yees yu King FM dafay dafay door. donc man Seydina Amal euh, di ngeen ma mën a am ajjuma ci guddi dëgg la mais di ngeen ma mën a am euh, li ko dalee altine ba ajjuma ci fajar bi incha allahu rabi altine ba ba ba altine ba euh, ci ci fajar bi mooy ci matinal bi nga xam ne dina am rubrique yu am solo yoo xam ne dinañ si nekk ci waxtaan ci domaine yu bëree bëri bëri kareel bu dee kooku nekk na ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum warahmatullah maa ñëwaat waaw bi ah soxna si waaw aca léegi balaa crédit bi di jeexal wax ma ci lan nga bëgg ñu xoolal en tout cas waxoon naa ne wàllu cat waaw wàllu jëkkër de laa bëggoon nga xoolal mbaa ah, am nga koy bëgganteel hmm? am nga amagoo borom kër non non am nga koy bëgganteel mbaa waaw aca bisimilah mun nga ma joxe initial am eh, initial am waaw commencement tubbe commencement santam M M S S S mhm. ah, comme S comme sec Sylla. comme Sylla waaw bisimilah léegi yow sa sa commencement tur lan la. Euh, MD. MD. K. MDK jox ma deux chiffres entre un ak dix. deux mhm. euh, bi joxoon nga ma ko quatre bi ak deux bi jox ma yeneen yu bokkul ak yooyu. Hmm. joxoon nga ma six joxoon nga ma quatre joxoon nga ma deux. léegi nañ ko gën a yaatal entre un ak vingt tànn si ah. 16, 16, 15. 15. 15. Ok. 15, 6, 16, 7. 13, 13. K, ah, Barnolet. Hmm. Hein? MS. MDK. Ouais. Nitu Ndok. Nitu Souf. Mm. Barne. Mm. Mais il de qui? am. wàllu sëy di ci taxaw dëgg la naam nag mbir yi mun naa xaw a yéexandum aslëf mun naa xaw a yéexandum aslëf mais bon dama jàpp ne rek wërsëg wuy bu yàlla di defal day mel ni luy yàq kay faral di wax mais nii nii nii nii nii gisuma ci jafe-jafe en tout cas ndox la ak suuf eau et baax na ORTL e baax na donc loolu dafay nekk loo nga xam ne meññeef def si am wàllu sëy mun a nekk li nga xam ne taw féex def ciy jublu incha allahu rabi waa kon dèjà loolee nekk na loo xam ne na nga ci bàyyi xel bu baax a baax waaw mbaa baax na baax na mbaa dooy xulóog moom rek. Eh, bul xulóog moom de baax na de. baax na de leen rek mooy xaw a am cat bi MDK bi mu dafa xaw a fiir. Ah? moo si kan yow wala ku góor gi. xaw a fiir de. filaanga bi moom mbaa du lay indil ay jafe-jafe. dañuy dañuy def lan. demee suñu ah, ah waaw jaa demee seen xel nag baax na de parce que MDK bi dafa fiir filaange moom moo taxaw ci moom. MS mm-hmm. euh, bi wax dëgg yàlla euh, nekkul nit ku bëri problème mais bu xesee ba mer du gaaw a sedd donc kon xam nga yooyu moom nañ koy moytu gaa yu sedd yooyu. seen mer du jeex quoi mais MBK bi de moom MDK bi moom fii laa ngi daal mooy catam moom. dëgg la xel mooy di xalaat loolu. di di di xalaat te pourtant mën na nekk li ñuy xalaat sax amul. mën na nekk li ñuy xalaat. mën na nekk sax amul donc te man ji suma sax li ñuy li ñuy xalaat noonu mu am quoi xam nga léegi-léegi nag nit ki boo bëggee da ngay fiir dëgg la waaye fiiraange bu ëpp baaxul. waaw incha allah donc yàlla na yàlla def. seen diggante xéewal mun si feeñ tawfeex en tout cas óola ak teer suuf ak ndox xam nga suuf ak ndox baax na parce que bu tawee dangay ngay gis gàncax day am mm-hmm. bu gàncax amee meññeef am meññeef bu amee gàncax am donc loolu moom baax na baax na trop cat bi moom dafa dafa bëri léegi euh, c'est dommage que mi ngi coupé ah mi ngi coupé soxna soos ñu doon woowee foofee ci diwaanu Diacksao pour wàllu cat bi il faut nga woo ma euh, da may woo ci 77 803 46 46 77 803 46 46 donc da fay numéro bi nga may comme ça ñu ci bi minuit demain, ba 37 euh, minutes fi ci King FM 99 euh, émission astrologique de paix à Allo Voyance man Seydina Omar ma len koy defal bu jot ci waxtu wi minuit lay 2 h du matin ngeen mën a woote ñu mun a waxtaan en suuf sedd ngeen wax ma seen xalaat ñu waxtaan par rapport ak décision yi gis nga soxna si ki woote nii léegi moom MDK nekk te moom dafa fiir donc fii laa boobu gis nga dem na ba wax ne moom léegi kon xelam lay doxal donc loolu dafay nekk loo xam ne lu am solo lay doon donc yi nga xam ne daf si nekkoon euh, mu doon indi ay jafe-jafe ak gàllankoor yooyu yëpp dafay nekk li nga xam ne euh, daf koy bàyyi rek daf koy bàyyi xam ne àdduna amul solo fii laa ngi ëpp

woote jak saaw donc ñoom ñëpp donc gis nga question yi nga xam ne posé nañ si yoon wi nga xam ne teg nañ leen si tegtal yi nga xam ne wax naa leen ko euh, donc yooyu dafay faral di di di di euh, di am donc noonu lay demee émission bi ci yooyu lay dox ñuy waxtaan ci seen i mbir ngeen bañ a tiit bañ a ragal wala ñu fi wax loo xam ne day indi ay jiixi jaax wala di jaxase ay mbokk wala di jaxase ay nit donc loolu nekkul li nga xam ne tax nañu jóg liñ ciy def daal mooy euh, waxtaan sottante xalaat joxante ay conseil wax leen yoon yi ngeen ni jaar li ngeen war a def li ngeen war a bàyyi euh, li mën a nekk li mënul nekk donc loolu dafay nekk li nga xam ne euh, luy luy jàppandi lay doon donc mbokk yi nga xam ne euh, ñu ngi wëy di ñu seetaan ci www.kingfm.sn wala di ñu déglu ci 99 point 4 King FM ngeen mën a wëy di woote ci 88 628 99 90 88 628 99 90 muy nekk numéro bi nga xam ne ba leen si wootee rek euh, ñu mën a jokkoo ak euh, ak yéen euh, mun leen jox ay tegtal par rapport ak seen i mbir di xool lépp li nga xam ne fës na ci yow di bàyyi xel ci ñi nga xam ne jamono bii nii ay agent de sécurité lañ hmm, ay agent de sécurité lañ moo xam ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci bërëb yi actuellement nekk de garde monté donc ñuy bàyyee ñaan yàlla mu sàmm leen Samuel, ah, sàmm Sam sàmm sàmm Sam len baax sàmm bërëb bi nga xam ne dénk nga ngeen fay tamit yàlla na si def euh, euh, di bàyyi xel ci ñëpp ku ci Phoenix Scorpion donc société de gardiennage yëpp ñuy bàyyi xel ci a ñuy am ay de valeur ay ñu xam ñu bëgg xam fi ñu jëm des personnes responsables ndax responsabilité

bi ñu dippee allo-voyance man Seydina Omar ma leen koy def defal àjjuma bu jot ci waxtu wi comme niñ koy faral di waxee ci publicité way minuit ba deux heures du matin ngeen woote ñu mën a xool waxtaan ak yéen jox leen ay tegtal ci seen i seen i affaire ah, xoolal leen bu baax a baax li ngeen war a def looleen leen warul def fi ngeen war a dem foo leen warul dem cat bi li koy indi boo leen nga xamee li koy dindi li nga xam ne dootu ko indiwaat boo leen seq ak ay nit ah, ndax da ngeen waxtaan ak ñoom teg ko ci yoon ñu bañ leen war bañ leen teg ay affaire donc yooyu yëpp nekk loo xam ne incha allahu rabi euh, dinañ ci bàyyi xel saa su ne ah, donc Karel xam naa ne ñu yéegal tuuti jeune boo déggee astrologie nag mi ngi jëm ci lépp lu jëm ci wàllu biddiw ah, jëm ci wàllu mbiru euh, doomu aadama ñuy waxtaan ci seeni affaire donc li nga xam ne euh, nëbbu na ci yéen maanaam xamu leen ko wala gëstuwu leen ko ma leen koy tojal wax leen li ngeen si jaar yoon yi ngeen si jaar li ngeen war a def li ngeen war a def fi ngeen war a dem fi ngeen warut a dem li leen di yàqal li leen di amal li ngeen bëgg décision yi nga xam ne da ngeen koy jël est-ce que décision bu baax la ndax lii boo ci duggee di nga ci am ndam ndax boo ci génnee da nga yéex a génn ndax wàllu tukki bi nii sa xel nekk ah ndax lu mën a antu la donc yooyu di nekk li nga xam ne ah, nit ki dafa war a xam waroo ñëw rek jël par exemple sa xaalis bu bëri wala jël sa alal Euh, dugal ko ci jigen te wóoru la nax jigen bobé ngay dugal est ce que dina nek sa soxna donc yoyu dafa nek li nga xam daf ci taxaw wala bu fekke dem na ba nek nax amul ay jafé jafé wala ay gàllankoor yo xam dañ ci dañ ci taxaw donc déjà yoyé nek na lo na ngeen si bàyyi xel bu bu baax baax nañ si bàyyi xel bu baax baax donc fay faral di am euh, mbokk yi nga xam ñi joko ngi bugg a euh, ak man pour mëna xol par rapport ak seen seen i mbir seen i concours ah yi ñu bëgg a def concours douane wala oe et wala concours bu mun di nekk ah donc incha allah rabi ba leen defee 88 628 99 90 88 628 99 90 bala nga ko defee rek ñu mun a ah, mun ci xool ngeen jox ma am ay information yoo xam ne dama leen koy laaj boo leen ma ko joxee rek incha allah rabi ñu mun a xool ma gëstu par rapport ak man li nga xam ne xam naa ko pour ñu mën leen si jox ay ay ay ay tegtal wax leen nax war ngeen ci dem waru leen ci dem war ngeen ci sóobu leen ci sóobu yooyu yëpp di nekk li nga xam ne incha rabi euh, tous les vendredis day am vendredi yëpp ci 88 628 99 90 88 628 99 90 si lay am euh, ñu mën ci waxtaan ak yéen mën leen xoolal seeni affaire comme ni nga koy faral di defee saa émission bi nag noonu lay demee donc incha allahu rabi dañ si waxtaan di ci jox tamit ay tegtal di ci jox ay conseils par rapport ak seen seen vie ah wàllu cat nit dafa war di nëbbu nit dafa di nëbbu bu ñu xoolee lu ci gën a bari dina am ay mbir yoo xam ne mi ngi dal doomu aadama dara indiwu ko lu dul ñàkk nëbbu fës ah fës maanaam daal loo dugg walla foo génn ñëpp ne diw sàngam génn na foo dugg ñëpp ñu ne diw santé di nga dem ba bu dara xewee sax da ngay weex dunk weex dunk ba nga xam ne donte fekkee woo ko sax mais dinañ ne est-ce que diw bokk ci donc loolu dafay nekk loo xam ne fës googu da ngay indi ba boo moytu mooy indi wàllu cat di la yàqal lu ba nga gis nit am départ bu baax nekk ci lu baax malheureusement buñ demee ba ci biir mu am ay yàqu-yàqu yoo xam ne dañ siy nekk malheureusement donc kon déjà yooyu dafay nekk loo xam ne dafay faral di dal nit ñi muy woote di laaj lan moo ko dal euh, wala muy ne dañ ko sànni kort wala dañ ko liggéey wala nit ñi dañ koo bañ hmm? loolu yëpp dana amu ci loolu yëpp dana amu ci moom moo ko def rek moom mooy xoolaat boppam xoolaat toogawaay toogaayam li yi di wax ne euh, qui veut vivre heureux vit caché ah qui veut vivre nit ki boo buggee am am am dara dangay dangay da ngay dafa nekk loo xam ne lu lu am solo la ci ci nit dafay baax ci nit donc nit ki il ñuy bàyyi xel ci loolu di nëbbatu di bañ a exposé wu loolu dafay indi cat te cat nag moom dafa sew day topp nit ba ci bàmmeel donc yàlla nañu yàlla musal cat yàlla nañu cat seexlu donc loolu nag kenn du ko indi ku dul yaa koy indil sa bopp ah yaa koy indil sa bopp kadeer dañ ko jël ki si ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum waaw euh, kokal la soxna si wala sëriñ bi ah sëriñ sëriñ bi waaw delloo nañu baax na koy tey tarkalla fooy wootee nii maa ngi ah naka Grand Yoff alhamdulilah jox ma jox ma sa date de naissance ak trois chiffres yu la neex entre ak vingt. 1997 aha uh-huh. nga jël 7 14 17. waaw. ok euh, douane bi jox ma deux chiffres entre un ak dix. Ah, Kanel euh, kii mooy ñaareelu nit buy woote ci ci wàllu wàllu wàllu concours bi ki njëkk di woote. ku jigéen ki doon wootee kooku douane la ak moniteur ki moom nee na douane la ak forêt donc pour ma mun la ci jox ay tegtal yu leer il faut ma am ci ay ay information yoo xam ne dama koy am ci ay chiffres yoo xam ne buñ ko adapté ma mun la jox sa pourcentage pourcentage bi nga xam ne pourcentage de chance de réussite lay doon léegi bu fekkee ne pourcentage bu kawe la alhamdulilah nga gën a góorgóorlu bu fekkee dafa nekk pourcentage bu xaw a suufee nag euh, bu boobaa nga gën a farlu gën a gën a gën a gën a gëstuwaat gën a jënguwaat parce que concours moom euh, du question ay comme examen concours ku ëppale la ku am maanaam bu ñu nee ku ku ëppale ay points yi nga am rek euh, ñoom la ñuy ñoom la ñuy jël donc ci quota bi bu ñu nee tant de kii la tant de personnes la ñu soxla donc nombre de personnes boobu ñu ëppale rek la ñuy jël donc déjà loolu ñu ci bàyyi xel bu baax incha allah rabi da ngeen may woowaat rek.

ngeen mën a numéro di 88 628 99 90 buñ si jokkoo rek euh, dinañ si a ak yéen bu bu baax a baax lay demee nag saa su ne euh, kadeel waxtu wi donc di bàyyi xel ñëpp hmm, programme King FM programme King FM nga euh, ni lay donc ni yëngu euh, ci walu mbiru aduna euh, di yëngu ci euh, domaine yu yu bari donc matinal bi également léegi mu door ak àll dirigé ko ñom ah, ñoom Coromal nekk si ñoom Mayte hmm, Seydina Omar Laari donc mu nekk programme bu riche bo xamne da koy dalee 7h ci suba bu ñu xëyee rek 7h lay door danaka ba ba dix heures ah, bu 10h jotté rek après animation bi door comme ñom bab Cheikh ñew ñom Lisa fegg ko. Euh, bu ñu jógee ci loolu kooku euh, ji ñëw Mati hmm, après ñu ñëw ci ñoom Fafa ah ñoom euh, ñoom ñoom Ngoné Ndiaye ah Ngoné Ndiaye géwél donc maanaam daal programme bu am solo lay doon boo xam ne daal ñëpp dinañ ci mën a jis seen bopp incha allah ajuma yi nag man Seydina rek ma ñëw ñu ñëw ci wàllu ci wàllu wàllu wàllu wàllu mbóoti wàllu nëbbu li mun ci waxtaan jox leen ci ay tegtal bu suuf seddee bu bu deux heures bu minuit jotee ñu jëm nag deux heures du matin. waxtu woowu ku nekk dina mën a ñëw ñu waxtaan bu baax ba xool seeni mbir ci domaine yi mu mën a nekk hmm, domaine yëpp ñu waxtaan si wàllu wër gi yaram wàllu avenir vie sentimentale ci lépp loo xam ne xalaat nañ ne rek buñ ci waxtaanee ak yéen di ngeen ci mën a am am ndam di ci mën a am ay tegtal di ngeen ci mën a gis yoon yi ngeen di jaar yooyu yëpp di nekk li nga xam ne incha allahu rabi ci defee rek dinañ si mën a waxtaan. Euh, loolu nag à partir de di 12 lay doon incha allah rabi vendredi 12 Kanel vendredi 12 vendredi lay doon waa xam ah xam mooy ouverture bi xam naa boobu moom ah Kanel de boobu moom bëgg naa la xool ba xool noo taxawee rek ah ah bon waaw fexeel ba koy àndal hmm? kan de dee dool amoo madam kan ngay àndal kay ah aca bisimilah ñu jël kooku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum sëriñ bi bisimilah waa douane bi jox ma deux chiffres entre un ak dix hmm? sept ak neuf jox ma beneen bi lan la eaux et forêt beneen bi ban la eaux et forêt waa aja jox ma boobu tam deux chiffres entre un ak dix yu dul sept ak neuf hmm. trois ak 6. 9 Ok. C'est Allo Allô? Je suis concentré au OFRB. Oh, je suis Karel. Je suis donné des informations. Donc, je euh, suis concentré au OFRB. Dans le cas où il y 77% de réussite. bu dee ci douane bi dafay nekk cinquante pour cent yaa ngi dégg donc du coup eaux et bi na ci gën a na ci gën a jublu daal ci gën a jublu bu baax a baax a baax comme ça mu mun cee am li nga xam ne daf ko daf ko bëgg donc douane bi baax na pourcentage bi nag cinquante trois la eaux et bi moom soixante dix sept la donc xaw naa gën a gën a kawe donc na ci gën a na ci gën a yëngu waaye na def ñaar yëpp rek. parce que 53 tamit lu ci mën a xew mooy dépassé na euh, moyen bi donc mi ngi noonu noonu lay demee ngeen woote mun a am information par rapport ak seen i mbir par rapport ak li nga xam ne da ngeen ko bëgg par rapport ak yenn euh, mbir yi nga xam ne bugg ngeen ci am ay tegtal bu ci am lu leen leer euh, ginnaaw bi minuit waaw minuit dem ba tegal 56 minutes mu mel ni kadeer yi ngi toxuñ bët yi xam naa ne waxtu wi nga xam dañu ko jagleloon ñi ngi yegg ci ci njeextal bi waaw ah, di bàyyi xel ci ñëpp ñi nga xam ne euh, ñi ngi doon fait euh, ak ñun doon ñu woowee fii ci diwaanu dem ba fële ci Casamance di bàyyi xel ci ñooñu euh, diwaanu Parcelles diwaanu Grand donc ñëpp ñi nga xam ñi ñu doon déglu tamit di ñu ci ci yi ci donc di ci digital bi may sa ñu digital bi ñi nga

Euh, ma jigéen Thiam donc euh, ñoom ñëpp ñuy ziar ci ñoom bu baax a baax a baax ñoom ñoo ñu doon euh, déglu di ñu seetaan ci Facebook live bi donc man Seydina Omar ma leen di jox di daje incha allah ajuma bii di di ñëw laatam ñuy doon nag semaine bee di ñëw incha allahu rabi li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom mooy programme bu bu bees bi ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a jokkoo man ci hors antenne bi nag te jotaguñ ma ñoom mën nañ moo ci 77 803 46 46. 77 803 46 46 wala ci 76 527 32 32 76 527 32 32 man Seydina moom ma leen doon defal seen émission feggoog may sa ci wàllu digital bi Kadel, ci wàllu xarale bi di leen jox di daje incha allah ajuma bi